Euh, ma répondre nag ci Sall mi nga xam ne trois mois la fa defagum silo bee ngeen di seen fa la nekkoon avant que waa Bessa di ko débauché histoire bii da ko mag mais je le comprends jeune bu ambitieux la euh, boo amee privilège bu ñu la tegal c'est normal ngay défendre say couleur ok donc nag euh, nit dama bëgg éthique bi nga xam ni seen plan RSE signé nañ ko ci ñu koy doxal ndax di wax ay faits diffamatoires ñun du leen leen poursuivre jël nag ay journalistes ñëw ñu taxaw naan site Diazaka mooy ànd ak Bissa contre maam Gor Diazaka ma laaj ñi fi taxaw kan moo ci taxaw ne maam Gor Diazaka seen fulla ak seen fayda ak seen santé ak seen i ëllëgu doom moo tax ñu taxaw fi donc nag euh, ci suñuy kilifa parce que man non seulement porte parole la di adjoint euh, futur délégué de quartier bu euh, Diazaka en même temps